bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi nuyuwaat bokki taalibe yëpp bokki jullit yëpp bokki dëkkandooyu Tuubaa yëpp di jotliwaat nuyóob samay kilifa ni ma ko baaxoo defee rawaat na bu may soobu ci liggéey bii nu yóbbu jóge ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha mii Serigne Touba moom dëkk bi jaar ci Cheikh Bassirou moom Serigne Abdou Khadir mii sunu jëwriñ ci liggéey màggal gii ak liggéey Serigne Touba yu bari ko Serigne Mountakha def loo mu sunu jëwriñ den liggéey boobu jaaraat ci Serigne Cheikh Jëmb Fall mi jiite xalifa mi xalifa général Baye Fall yi doon lépp naa leeral li tax ma wax nuyoo bi fi mu waaye nuyoo bi mi jëm ci bokki taalibe bi yëpp ma jiital kilifa yi ci nuyoo yi ak jëwriñ yi ak ñeen baaxoo ànd liggéeyu mbale mi ñëpp ñoo xam ne kàddu yi soññee ci mbale mi rek la jëm mbale mi waxtu wu bu ñu koy soññee dañ koy dellowaat ci ginnaaw seen ndigal la nam nu woon suñ Cheikh Mamadou Baara joxe suñ Muntaxa ndigal ne ko dama bëgg ñu setal dëkk bi balaa gani Sëriñ Tuubaa yi ñëw suñ Muntaxa bi mu egsee ci kër ga mu ne ma suñ Baara jox na ma ndigal loo xam ne joxaat naa la ko nanga dem fa ñuy nase màggal gi seet ñu la booleel ngeen taxaw seetu dëkk bi te nanga dem ci sëñ Cheikh Jëmm Fall mi jiite njabootu Cheikh yëpp da nga wax ko ma defee ko noonu ci at mooma sëñ Muntaxa moo taxawul boppam mbale mi di xëy di yandu ci kër sëñ Tuubaa gii ba tàkkusaan ñu def liggéey boobu ci toll juróom-ñetti fan lépp àgg ca déwén sa ba sëñ Mamadou Lamine Bara waxee sëñ Muntaxa ne ko màggal gi na la ko sëñ Basiirum sëñ Abdu Xaadir taxawul ndax liggéey bi daaw sonn nga ci ci metti na ci mag sëñ Basiirum sëñ Abdu Xaadir waxoon sëñ Muntaxaa ne ko damaa bëgg nga wotal ma ci say jëwriñ ñoo xam ne damay ànd ak ñoom liggéey bi sëñ Muntaxaa boole nu ne ma naa bokk ci ñaan ak sëñ Saabas liggéey bi sëñ Saabas ne la nga féete woon ci liggéey bi daaw dara ëpp ko ci solo kon na nga ca féetewaat te mooy seetal dëkk bi ma ne ko kon li may ñaan rek ñama ko àndaloon taxaw ko bam liggéey bi mel na wala mel dama bëggoon ñu maye ma ma àndaat ñoom bu ma ko àndi ñoom dina mën a sama xel dina ma àndaat ñu taxaw ko nañ ko war a taxawoo mu mayoon ma loolee te ñama ko àndaloon nag ñi ci jiitu woon mooy Baay Faal yi sëñ saa jëmb waaye waxtu woon damay wax ne bu ñu waxee sëñ Cheikh Jëmb wax Baye Fall nag boole naa seexi Serigne Touba yëpp ak taalibe Serigne ndax noo bokk fu nekk bokk fun jëm bokk ni doxe kon noo bokk lépp liggéey Serigne Touba bu nit noo ko baaxoo ànd kon lii noonu rek lañ koy waxewaat noonu lañ koy doxewaat àndal ko bokk kilifa yëpp ba ko bokk yëpp ak kilifa yëpp. kon nuy soññewaat nag war a jubluwaat ci liggéey bi liggéey bi nag jekk nii la daan demee ndax benn panu safar lañ ko daan tàmbali waaye bu ñu masaan weesu bisu Ashura bi ci lañuy ñuy tàmbali réunion yi ak soññe yi ginnaaw bu ñu diisoo kilifa yi ginnaaw bu ñu jotee ndigal ci kilifa yi diisoo waat kilifa yi noo ko jëlee ci suñ Muntaxa ak suñ Saabas jokkowaat ak kilifa yi mooy tàmbali suñ saa jëmb jokkoo na ma moom dem naa fa léegi jot na ndigal foofu yëpp woote na ab réunion démb jëwriñ yëpp ñëw nañ jot lewaat naa ndigal li ngir ñu ànd waajalaat liggéey bi ñu ñu ko daan àndal nag mu nga tàmbalee ci ñi jiite mbooloo yi ci dëkk bi ak li ñuy wax ay chef de zone dëkk bi ñu seddale ko ay zone yoo xam ne zone bu nekk daa am ku fa nekkal liggéey bi ak ñi jiite daayir yi ak ñi jiite benn yi ak waa maire bi ak ñëpp woo naa leen démb waxtaan naa nañ tàmbaliwaat nañ sóobu nañ ngir waajal liggéey bi nii nag nañ ko daan defe bu ko defee mu jottali ba ñëpp yéeg ni ñu ngi waajal liggéey bi ba ba ci biir dëkku Touba ak biir réew mi ak bitim réew fooy man noo man a jàppee ci liggéey bi nga jàppee ni ci noonu bu dee waa biir Touba mu ngi tàmbalee ci borom oto yi tàmbalee ci regroupement benn dëkk bi noonu la ko daan defee ki jiite groupement chauffeur yi ñu wax ak ñi moom oto yi ñuy déggoo bañ jox ma oto yi boobee buñ ci àggee ba liggéey bi àgg lañ ci daan dolli mooy maire bi am na wér gu ñu ci daan féeti gu wér rawat lu jëm ci gasoil bi état bi lañ ci daan jàppee dafa daan jaar ci ministère ba jaar UGC seen coordonnateur ñëw yabal ndawam yi nekk fii lañ war a jàppe lépp jàpp ci at mooy noonu lañ ko doon defee noonu rek lañ ko dinañ ko séentuwaat ni lañ leen tàllal loxo di leen waaj dégluwaat bu ko defee nag ñi war a liggéey liggéey bi jëkk bi nag mooy ñu jiite mbooloo yi nga xam ne mbooloo yi nag mooy ñii génn di setal ñiñ ko àndal mooy ñu leen taxaw mooy chef zone yi bu ñàppee oto yi nañ ko daan defee oto yi ñëw ñu jox bayfal yi jox daayira yi lii jox zone yi yii ñun ñëpp génn ñu bale dëkk bi noonu laa bëgg ñu def waat ko niñ ko daan waxee it dañ koy gën a xam di ko gën a façon ba muy gën a yomb noonu la doon demee daanañ ko def ci juróom-ñetti fan ñu juróomi fan juróom-benn fan at yëpp benn bis lañ mbale mi ak tonne bi doon ñaari fan lépp di ñetti fan ñu bayaali bàq yi ci biir ñetti fan yi ñeenteel ba ñëwee ren nag dolli nañu liggéey bi dolli lu ci ab sëkk sëkk boobu itam ñoo ngi xalaat ne faawum lu mu gàtt gàtt jël nu ñaari fan ak benn dëkk bi yëpp ak oto yi ñàpp yëpp mu xalaat ne kon ci biir ñetti fan yi bu dëkk bi setee dañu am ñaari fan yoo xam ne oto yëpp dañuy dem ci sëkk bi mat téeméeri oto nangam buñ dee xëy di sarse ba ngoon di sotti danañ fi def lu ñu mën a xam donte néewuñu dëkk bépp mën na sa ko setal ndax dëkk bépp daay yaatu te fépp di ndox te day bari foo xam ne boo ko sëkkeetee nga ngëccoo ko daanaka la ngay seet du am njëriñ te bokk nga ci it bokk nga jege sëkk ko tey bi ci suba saa mu tawaat ndox ma ñëwaat waaye nag dañuy def liñ man lépp suñ am kàttan rek te lépp nu fas yéene liggéeyal sëriñ bi selal ko dëkkam bi setal ko dëkkam bi wàññi jaaxle dëkkan ñi fi dëkk àggale yéene sëriñ bi loolu rek lan ci façon te moom lañ ci bi moom lañ ci sooboo noonu lañu koy doxee bokki taale bi yi ma bokkal taxawoo gi itam ginnaaw bu ma leen sante jottali seenu taxawaay bu rafet ñoo ko ànd waroon nañoo bokk jataay soññe bii dañoo jàpp ne ci beneen liggéey met mën a ci beneen liggéey fii waaye noo koy ànd ci biir ànd gi nag démb rek tase nan am na suñ ndey daara joo xam ne bu soxna su mbàkkee mooy mi ngi suñ kanam jëwri ñi nga xam ne mooy ñu topp ci man sëñ Xaadim Mbàkke sëñ Murtala Seck ñu dem na ñoom ñoom ñëpp démb ñu ngi fi woon kon léegi nag nañ ma euh, jéggal mënuma lim ñëpp waaye nañ xam ne kenn ku nekk fa nga ci daan jàppe ak na nga ci nekkoon noonu rek la kenn ku ne ña nga daan soññ na nga leen soññ na nga leen wax na kenn ku ne loo daan jot na nga ko jottali ñu jiite mbooloo yi népp nu mu daan demee daal daan demewaat ba réunion yi bu ñu ko waree defaat bu ñu waree wax ci rajo yi bu ñu waree yebal mbooloo yi bu ñu waree tàmbali liggéey bi fu ñu waree yóbbu oto yi fu ñu waree yóbbu xéwal yi lépp non nan ko daan nase nan ko nasewaat xanaa day yokk suñu yitte rek fetli suñu laxasaay ndax mu gën a yomb maa ngi soñ ñëpp di déglu di nekk ñëpp di tàllal ñoxol ñëpp bëgg na ànd ko di ñaan nag ci barke bi sëriñ Touba suñu borom bàyyil nu sëriñ Mountakha wéral na ko bàyyil na ko fi waaye nag ñeen daan sax liggéey bi kenn tam kenn ku ne maa ngi ñaan yàlla defal jàmm ak wér jëli fi mbas mi defal nu yokk defal nu xéewal ba kenn ku ne noo ci bëgg a doxee nga mën ko caa doxee ba liggéey bi di gën a yomb liggéey bi gën a yomb suñu mbir yëpp di gën a yomb tey gal ëllëg maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp li ab tàmbali la buñ bañ yëgle na liggéey baa ngi ñëw li ci des nag ci àggee dañ ko a wax jàpp nañ nag benn paro safar bi ñu ko jàpp def juróom-ñeenti fan ci weeru septembre non waaye nag bu gën a jege dañ gën a génne date bi ba mu gën a leer réunion yi war a danañ ko waxaat noo ngi ànd ak sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulah.